donc euh, euh, solo ndaje bi moom mooy euh, waa FEDA benn association bu nekk piir mu organiser benn rencontre pour ñu mun a waxtaan ci décentralisation surtout si période bi nga xam ne dafa am mooy réforme bu bees boobu et comme ay culture locale yoo xam ne yu bees la et puis am ay conseil yoo xam ne yu bees la ñoo xam ne mosuñu suñu am mandat donc baax na aussi ñu mën a toog ensemble dajo waxtaan ci li nga xam ne moom mooy acte trois moom mooy surtout aussi décentralisation nan la koy war a tëdd donc ci ñaari fan ñu war a daje fii ci piir pour waxtaan ci acte trois mais aussi waxtaan ci euh, culture locale yi na mooy seen fonctionnement nan la ñu war a nan la ñu war muy les communes et waxtaan aussi ci yan compétence la leen état bi jox waxtaan aussi ci lan mooy gouvernance locale ak yan acteurs ñoo ci nekk ku ci nekk lan la war a mën a def mooy responsable des acteurs je ci ñaari fan yi la ñu def après dañu waxtaan ci yeneen formation ci li lépp lu jublu ci affaire financement ou décentralisation. waaw bi ñu ngi gis ne bon c'est vrai que maillon faible effectivement ci première ci phase bi ñu toll parce que décentralisation parce que acte bi ñaari phase la dafa benn phase moom la ñu boucler nii deuxième phase moo nekk phase. réforme fiscale ak pôle territoire mais euh, c'est vrai que présentement li ñu constaté moom mooy y de financement de la mais aussi il faut ñu jàpp ne état dafa transférer euh, fiscalité locale di transférer ay ressources les ressources transférées sont très faibles dafay nekk 3 5 virgule 5 pour cent de la TVA moom lañ transféré aussi bien pour le FECL que pour le fonds de que pour les fonds de dotation dafa tuuti mais état bi transféré fiscalité ba fiscalité bi si yoo xam ne bokkuñu dayoo parce que am na ay communes yoo xam ne effectivement am na potentiel fiscal bu fa nekk boo xam ne war nañ ko mën a ay Thiès ay Tivaouane ay Mbour ay Saly ay yenn communes war nañ am potentiel fiscal boo xam ne ay xaalis ba na fa jógee pour financer développement am na yoo xam ne bon comme ay Mbayeen ay yoo xam ne par amul sax marché ñoom effectivement y a un problème de viabilité au niveau en termes de financement ah mais toujours est que il faut que fondamentalement a a mën a xam lan mooy suñu potentiel ñaata locaux transférés et tout la parafiscalité aussi nga xam ne transféré transféré nañ ko ñu xam lan la ci a am bu ñu xamee lu ci mën a am ba pare ñu xool nan la ñu mën a def nag pour loolu ñu amee li ñu am bu ñu ko financer ba pare bu desee bu amee ay rëq-rëq ñu ne ah lii kat il faut état bi dugal ci dugal ci dugal ci lii mais je crois qu'il y a un travail faut faire et l'état doit effectivement renforcer fonds yi muy joxe parce que 3,5 pour pour cent de la TVA faut aussi que collectivités locales aussi gën a liggéey mu améliorer seen efficacité fiscale qu'on appelle potentiel fiscal mais aussi gën a améliorer seen efficacité fiscale mais là aussi du seen responsabilité ñoom rek parce que la chaîne fiscale dañ ko décentraliser en kenn décentraliser wu ko impôt ak trésor ñoo ko yor ah collectivités locales yi liñ ci rek léegi moom mooy jàppale éventuellement pour que ñu gën a mën a recouvraliser parce que ñu ngi ay commission fiscalité locale mais bon loolu aussi am na ay limites aussi la commission fiscalité locale mais je crois que fondamentalement il faut ñu revoir la chaîne fiscale gën a impliquer les côtes locales ci assiette bi ak recouvrement impôt pour que ñoom ñu gën a am xaalis pour mën a financer seen décentralisation